nous ne sommes pas compétents. je vous ah donc vous êtes d' accord si loolu. non non non non le juge. vous le juge loolu la c'est bien c'est bien. d' accord je xam nga euh, première étape bi mooy boobu le député a dit def discours am bi dépassé le sept. du ma wuy dans le discours on parle de combat ak yooyu man je vous ce que j'ai entendu aussi xale yi dégg ko. génn mu am la kaas du dëgg gis nga loolu interprétation yi ko xale yi joxe ne bon dégg nañu suñu leader ne le dernier combat ou l'avant dernier combat mhm. loolu moo indi problème yooyu mais est-ce que loolu appel à l'insurrection la ah mais nuru na ko de. non xam nga manifestation. mais non mais nuru na ko de. non non je pense que loolu daañu bàyyi. mortal combat. voilà la ma tamal la xale yi interprète leen di interprète ah, leen ah, mais loolu nuru na ko de telle sorte que aujourd'hui y a eu des dérapages loolu am na ya des charges qui sont mises sur le sur la sur les personnes yoo xam ne ñoom lañ téye mhm. mais lu kii wax également monsieur Ly ay nit ñoo xam ni xam nañu li ñuy def ils n'ont aucun casier ils ne pas des malfaiteurs mhm. nous sommes dans un domaine politique il faut le dire parce que ba mu yeggee foofu quoi l'affaire a été tellement politisée charge yi nga xam ne tamit yéeg nañ ko yokk ci tey man dama ne c'est pas de sa faute bu tey bi moom je suis je suis formel dessus. beneen bi nag. ban beneen bi. waxam boobu bu demee dana dana wax pourquoi il s'est ah prononcé. comme boo nee bii c'est pas sa faute kon bële c'est c'est de sa faute. parce que bii dafa clair. non non bële nag dafa clairul. clairul si man. voilà <laughs> d'accord voilà je veux être ah je ne sais pas été clair c'est très clair que c'est malgré lui qu'il n'a pas pu mhm. aller mhm. mais mun na naan yaa yaa indi outrage yaa indi trouble mhm. que je n'ai pas vu d'ailleurs jusqu'au moment où il est interpellé te loolu tamit di nga koy wax donc moi je trouve que ak li xew ci dossier bi man je ne vais pas entrer dans le fond du dossier avocat la mooy avocat même bu fekkee ni Abdou n'est pas avocat il a des notions de droit je le connais Mm-hmm. lii moom n'en parlons pas parce que je pense que xam naa un peu son profil. Mm-hmm. sans entrer dans le dossier ba fi mu toll tey de waxuma luy ñëw suba parce que le juge d'instruction prend en maintenant la relève pour instruire à charge et à décharge j'ose espérer que dana demee noonu à charge et à décharge non bu dee bi procureur lay lay rendre compte ou bien juge d'instruction non gis nga affaire non le juge d'instruction a besoin de Ousmane Sonko moo ko convoqué woon ce matin dana dem foofu. non mais cest dire ci infraction yu mujj yi kan la amal affaire le procureur. non bu mujj bi bu mujj c'est le procureur. mais je suppose que dans deux ou trois jours. ok conseil jox raison li Abdou wax. parce que joxu ko moo tax ma attaqué neen attention. jox ko raison donc l'immunité est levée définitivement. dans ce cas-là c'est sûr que le juge d'instruction aura besoin de monsieur Ousmane Sonko. Mhm. léegi dama ne euh, bu ñu chaque chef d'inculpation dañ ko war a mesurer ñu instruire ko à charge et à décharge. tout man li ma xamagum ci dossier parce que dama koy regretter aussi ah comme ñoom ni ñu ko regretter comme tout le monde que ce dossier se retrouve sur la place publique mm-hmm. parce que section de recherche la nekkoon ku amul dossier bi yaa ko tey Sénégal mm-hmm. te loolu war nañ nguur gi war nañ si def attention sur ça mm-hmm. parce que chacun se fait sa religion. di wax di interpréter te sant bi bari coow li bëri kenn liggéeyatul Covid baa ngi fii kenn talatu ko le secret de l'enquête et de l'instruction surtout waroon na pousse parce que dossier bu génnee section de recherche la génne man du ma ci tax tourné de de pot bi journaliste jël ko ñu naan di leen di accuser ñu non ñoom buzz lañu bëgg lu ñu jot dañuy informer tas xibaar. ce qui fait aujourd'hui man ni ma xam ci dossier bi grosso modo la moo tax ma ne Ousmane demal wuy ji. Mhm. tout est damay rejoindre monsieur Lydie Mor xam nañ dossier bi factuellement objectivement man du ma dugg ci dossier bi di naan. <laughs> lii xam non non non. comme tout est à décharge. non non non dugg nga ci. xam nga lu ma tax ma xam nga lu tax ma lay wax de tout est à décharge. ah mais boo kon kay dugg. fi ñu ci toll aujourd'hui je suis précis ce que je dis parce que man booy booy plaider un dossier c'est l'instant T. tu n'es pas prophète pour demain mais à l'instant T fu dossier bi toll tout décharge. concernant le viol. Ah. je suis précis ah xam naa lu tax ma ma précis foofu. tout le décharge témoignage yeeg discussion yeeg euh, euh, confrontation yi plainte bi j'ose espérer que le juge d'instruction aussi pour écarter la théorie du complot ba apaiser ñëpp dana ne dañ na génneel ordinateur bi tapé plainte bi en une heure de temps express entre 23h et minuit le 2. d'accord soxla nañ ko ah. d'accord merci beaucoup Abdou. Euh, bëgg nga leeral ci affaire boobu. mais tey suba wala ginnaaw suba bu conseil constitutionnel. ne compétent na ci recours bi. ba annulé ko. lan ngeen di wax. waaw man parce que loolu itam lu mën a nekk la. man damay xam nga du ma wax xëy na xëy na day nekk surprise mais lu mën a nekk la. Papa Ngagne lu ma mën nañ ko xaar aussi. du ma wax lu ma xamul. waaw xam nga bi ñu lever immunité parlementaire bu xalifa Sall. Mhm. Ousmane Sonko mii. Mhm. bokkoon na ci ñi signé recours ba demoon conseil constitutionnel. décision bi mi ngi décision numéro 9 après boo bëree mën naa leen ko jox ngeen gis ko décision numéro 9 du 8 décembre 2017. mais yow yaa ngi yeeg sa kon mooy décision mën na am. déglu ma waa dé da nga may da nga may déglu non non non non non non non da nga may déglu da nga may déglu. non non mais la may déglu encore une fois. encore une fois encore une fois dama bëgg nga déglu ma dama ne. dama ne. ça n'a jamais déglu ma dama ne. ça n'a jamais été suspensif. mais dama waaw mais danga may déglu déglu ma d'abord. ça n'a jamais été suspensif d'accord parce que dama ne. Mhm. un recours est suspensif que le texte qui le prévoit le dit explicitement. Mhm. maître mi xam na li may wax. Mhm. parce que juriste la. kii xam na li may wax juriste la ñi may déglu xam nañ li ñuy wax boo gisee ma ne la le conseil constitutionnel est incompétent Papa Ngagne teguma ko ci ay chimère. mais doo ko wax yow. yow lay bàyyi wax mais mais mais nag xam nga man je ne m'en glorifie pas mais yàlla dimbali na ma fekkee naa lu am assemblée nationale jurisprudence déglu ma maître xam na ko kii. mais taxul nga nga taxul nga doon juge. mais attends da ngay déglu nekk assemblée taxul nga doon juge constitutionnel. c'est que ñun ñëpp xam nañ ko. dama ne décision immunité parlementaire et je suis formel dama ne un recours est suspensif lorsque le texte qui le prévoit le dit explicitement li ma wax c'est clair donc aujourd'hui amul dara loo xamante ni mën nañu wax ne c'est suspensif dama ne li may liir nii ci laay sukkandiku man pour wax ne lii c'est inconstitutionnel. comme magistrat baaxul parce que man non attends ça relève. de l' assemblée nationale. mani parce que li assemblée nationale la jógee beneen bi nga xamante ni moom mooy. Papa Ngagne li nga wax suba mënu ma ci am gàcce. parce que li may wax xam naa. te mhm. incha allah dinañ toogaat fii ci sénégalais la ñuy wax xam nañ li ñuy wax xam nga man met souvent du ma ko comprendre. mais mais bu ñu ñëwee ci grief yi nga xam ni sa sa naataango euh, honorable député yi def nañ ko ba mu jaral leen recours bi. Euh, ci commission ad hoc bi ni nga xam ni noonu lañ ko. noonu la demee ak waaw non ci lu gàtt rek. parce que ah, loolu aussi c'est important ñu xam ko parce que ay grief la yoo xam ni jàpp nañu ay vice de forme la ba tax immunité parlementaire bi war a am recours. xam nga lu tax amul vice de forme. commission parlementaire xam nga ñoom dañoo wax ne. gis nga lettre démission bi ñu bindoon daan ne juge d'instruction du parlement la commission ad hoc war a def déglu Adji Sarr ak ñeneen suñu réglement intérieur li may wax maître d' accord lu man sànq ba léegi mais bii d' accord ak man dafa wax ne commission ad hoc doit entendre le député qui peut être accompagné d'un de ses collègues qui peut être son avocat article 44 bi nga xamante ni ci chapitre 10 la nekk daan ne le règlement intérieur de l' assemblée nationale ci article boobu entendre toute personne qui peut aider à la manifestation de la vérité, mais dans le cadre d'une commission temporaire spéciale prévue par l'article 32 de notre règlement intérieur. ñoom doon laaj. waaw loolu tax ñu tudd ay tur waaw léegi déglu ma waaw déglu booba. loolu lañ doon laaj moom commission boobu ci commission temporelle spéciale la 12. waaw mais loolu la bokkul. bii commission ad hoc la ci article mi ngi nekk ci chapitre 12. waaw chapitre 12. levée immunité parlementaire kenn rek la ñu war a déglu. mooy député bi ak représentant donc ñoom dañoo jël article boo xam ne xam nañ ne. léegi bokkul ak levée immunité parlementaire parce que foofu article cinquante et un ak cinquante deux la. donc ça n'a absolument rien à muy benn est-ce que waruñu leen woon remplacer. bu fekkoon ne. ñoom ñëpp démissionné nañ opposition bi. là on peut dire mais da nga gis ne dafa am ñaar ñu déposé démissionné kenn ki nga xam ne mooy président groupe ba des ca biir dama lay wax aussi jurisprudence toujours Khalifa Sall bu ñuy lever immunité parlementaire am. ma Madické Niang bi nga xamante ni moo nekkoon président groupe bi dafa démissionné woon terewul Khalifa entendruñ ko terewul le processus dafa dem jusqu'au bu te dafa nekk dans la légalité parce que amul dara loo xamante ni dindi na ko donc amul vice de forme ba pare 15 documents yi ma la wax sànq ne am na dans la commission ad hoc ñoom waxuñu ko donc les choses sont très claires amul benn vice de forme levée immunité parlementaire bi lan ngeen ciy reproché yéen ci démarche bi euh, nga euh, levée moom ñun ñëpp gis nañ procédure bi ñu ko jaarale ndax bu fekkee ni juge d'instruction procureur saisir par un réquisitoire introductif le juge d'instruction mhm. visé ci x ñoom ñu wëlbatiku ne ñoom ñooy désigner x maanaam alaxam bi nga xam ni moom la procureur bind ci réquisitoire am ñoom assemblée ñoom ñoo xam bi muy tàmbali di wax dafa ne séparation des pouvoir bu leen ñu wax ko bu leen arrangé wul ñu tuddaat ñu tuddaat xaaral xaaral xaaral yéen a ngi rapport bi ngeen jot rapport bi ngeen jot bi ñu leen jox ah. ñu ngi ciy dugal photo ay prostituées yoo xamante ni ay nigérian lañ si non ñun a 15 documents xamoo ko mënoo ko xam da laaj député yi leen yi ngeen àndal mais mënoo ko xam tu ne savoir. li ma lay wax nii le député tu ne peux pas savoir on a 15 ko xam. Abdou yuuxu mënta nëbb dëgg. non dama lay wax mais mënoo ko xam yuuxu non yuuxu moo de dama ne mënoo xam li ñu jot. sa collègue sa collègue. oui Abdou Bara Mbacké nekkul ci commission ad hoc bi. waaw déglul bokkul ci commission ad hoc bi bokkul bureau bokkul conférence. des présidents député la du député. dama ne mais bokkul conférence mënu koo gis bokkul commission ad hoc. donc lu wax toogal rek ma wax la. waaw non dama lay wax rek dalal rek ma wax la. waxal ma ñeneen. Abdou Bara Mbacke Dolli moo génne Pape nga ñëpp gis nañ mu taxaw ak ci presse bi. ne leen ñoom dañ leen wan ci presse bi ne leen kii nii. mooy Adji Sarr wane ko ci ci presse bi maanaam. document yañ leen jox sax te te maître wax na ko sax ci procès verbaux yi. ci procès ci loolu moo ci nekk. moom moo ci nekk mais photo yooyu. présenté salon de massage bi. salon de massage bi tamit may waxaat ni ci procès verbaux yooyu noonu dañ dem jëli salon de massage yoo xamante ni seeni mbir dara leeru ci ñu ñëw ne. kii li mooy salon de massage en moom bokkul quoi adresse yi bokkul. <laughs> ma ne ci procès verbaux te ñu dégg te ñu dégg ndaw si ne moom pour ba ñu koy enquête ci vérification da leen jox même accès page Facebook am. daf leen ko jox pour ñu xam ne la muy def ak la ñu dugal ci dossier bi parce que mooy liñ ko toppee tey ndax tey dafa wuy ji juge d'instruction mu jël ko mettre ko sous contrôle judiciaire pour lan proxénétisme ak complicité de vol proxénétisme mooy lan mooy li nga xam ni ñoom jàpp nañu moom lañ dugal ci dossier bi koo xamante ni nag wan na la ba wan la ay page Facebook am yi muy liggéeyee donc kon kooku nëbbatu la dara te loolu loolu mais dossier dossier dossier bi ñu bi ñu bi ñu levé li tax ñu jël ko waroon ko jox député yi président bi ne ñëw leen sama bureau ngeen consulté ko ñuy évoqué lan secret de l' instruction ñoom instruire wuñ de parce que mooy li ma la wax ñoom bu ñu jugee ne séparation des pouvoirs bu leen arrangé bu leen arrangé wul ñu ñu ñu waxaat leneen parce que ñoom dans kon nangu na ni ñoom dañuy def instruction ndax bu fekkee ni dañu évoqué secret de l' instruction. mais kon dañuy def instruction kon nag article 44 règlement intérieur assemblée boobu noonu. secret délibération la déglu ma ah délibération. waaw dama lay wax rek li ñuy li liggéeyee yow tamit. dama li ngeen liggéey xam naa. waaw waxuñu noonu xamoo ko. kat dama dégg yow yaa ñëw yàlla yow xam nga li yow nga gëm yàlla. <laughs> non yow nga gëm yàlla. quand même xamoo li liggéey quand ma ne. assemblée li ngeen fay doxal ci dossier bii sénégalais yëpp ko xam ndax say collègues député ñooy génn di wax ñëpp gis ko da ngeen dàq presse bi ñëpp li ngeen def mais teewul askanu Sénégal xam nañ lan ngeen def <laughs> loolu foog ngeen xam ko mais dossier dossier dossier bi yow nan ngay ñëwee nga ne nëbb say moroomu député ne leen duñ joxe duñ joxe kii fond de dossier bi ñëw leen sama bureau ngeen consulter ko pour la Khalifa Sall ba ñuy joxe joxewuñ wuñ <laughs> loolu dégg na léegi Abdou Bara Dolly wax gis nga nag dañ leen wan rek ñu liir mais. kenn doxu leen dañ leen wan ñu liir kenn doxu leen parce que. c'est comme ça Pape euh, kii Pape Ngagne Pape Ngagne c'est comme ça qu'on fait. waaw baal baal donc consulter gis nga. Euh, kii xam <laughs> nga terminer ni ñu ni ñu gis nga ni ñu tàmbalee. ni ñu tàmbalee ci convocation gu lajj gi. Mm-hmm. jóge ci commission d'enquête parlementaire ci tarfatal ay ni ci lu gaaw. dugal ci seeni lajj ñu ñëw taxaw ne lettre bi ñu jox parce que réquisitoire du lettre ndax bu ñu demandé lever immunité parlementaire bu ko procureur santé procureur général mu wax ko garde des sceaux lettre yi muy yóbbu de transmission la. d'accord mais la base de poursuites c'est le réquisitoire introductif. te réquisitoire boobu noonu. xam lañ ci bind yéen assemblée ngeen taxaw tey ni alaxam mooy Ousmane ko loolu ngeen def te nag procédure bi nga xam ne jaarul yoon ci levée immunité parlementaire boobu te yoon nay say collègue député def recours parce que wax nga ni Khalifa Sall xam da ngay da ngay wax droit jurisprudence ci source droit la bokk comme comme kaaw xalifa Sall ni ñu ko maye woon mu def recours donte ni conseil constitutionnel déclaré na incompé eh, incompétent euh, incompétent ñu ñëwaat yoon mayaat la ñu mën a def seen recours te mu suspendre convocation bi nga xam ne juge bi jox na ko loolu ngeen loolu merci beaucoup donc jurisprudence boobu euh, lu ñu war a mën a nangul Ousmane Sonko la euh, te loolu aussi dafay tax recours bi war a suspensif bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne lii wax na ko